والقلم وما يسطرون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته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 alhamdulilahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin wa alaa aalihi wa saxaabatihi ajma'iin assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh yaa ahlal qur'aan wa yaa ahlallaah wa yaa xaasatallaah ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara ci jataayub alxuraan bu màgg bi waaye ci bis bi di sangu bisi yi yowmal jumaa waaye ci weer wi nga xam ni moo làmboo li gën ci bisi àddina yi di ndokkeel it ci tàmbali jataay bii di sant yàlla ca tàmbali ba di ko sant ci mujj kon jotaay bi nekk jotaay boo xam ne mooy tëjte tëjteb liggéey bi kàddu yi ni muy demee mooy ki nga xam ne moo jiite comité scientifique sëriñ Khadim Ndiaye dana jël kàddu moo jëkk a jël kàddu bu noppee euh, formateurs yi mooy ñi doon forme ñoom it dina am ci ñoom ku jël kàddu ñi nga xam ne it ñuy sëriñ si nga xam ne it ñoom lañu doon formé dina am kenn ci ñoom ku wax ci seen tur su ko defee it ki yor ki jiite woon wàllu commission euh, wàllu tansiq bi mooy coordination bi moom it dina jël kàddu ndawal sëriñ bi it ndawal sëriñ xabaan bu fekkee ne ñëw na dina jël kàddu kàddu gu mujj gi nag euh, c 3 ci njiital alxaji sëriñ Seck te rakkam Cheikh Mouhamadul Fadl Seck wuutu ko fi kon moom mooy yor kàddu gu mujj gi kon euh, raisul lajna al ilmiya euh, sëriñ Xaadim Ndiaye al imam kon fal yatafaddal mashkura bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala mbokki sëriñu daara yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare ci bisu ajjuma ju tedd ji ci barab bu tedd bi di daaray alquran di nuyu bu baax sëriñ si fi nekk sëriñ Sam sëriñ Moustapha sëriñ Mbàkke ak mbokk yëpp sëriñ Fadal bàyyiwuñ kenn kàddu yi kàddu yi santante la kàdduy santante mbokki jullit yoo xam ne dañoo nekk ci muhimma bu tol nii xalaat yi jóge fi mu war a jóge taxawaay yépp ak liggéey bépp ba mel nii sottee nii waaye warees na leen a sant lool yéen jàngalekat yi nun jàngalekat yi ndax lan toll ci bër donga yépp dem seen kër nga waroon jël sa piliyaan teg ko ci ker gu sedd fa la naajoo fekk nga dandu ngir boo ubbee mën a amaat énergie bu baax nga ne énergie boobu baax na waaye am na énergie xam-xam boo xam ne naa muñ ker gu sedd gi daw dem jëli loola ndax bu ma delsee mu feeñ ci liggéey bi yëg-yëg boobu ak nangu googu ak xam responsabilité boobu lu leen mat a sante la kon ñëw gi am ngeen ci cant gu rëy bi ci des mooy sharika c 3 bi nga xam ne liggéeyam lii ab bànqaas la ci ndax concours yaatal mbindum alquran moo jur lii mbindum alquran buñ ko bëggee yaatal faaw ñu fekk sëriñ daara yi ca daara ja yóbbul leen fa yaatal googu mbindum alxuraan a ngi fi woon ñuy bind ay kaamil waaye am na lu bari luñ ca war a dolliwaat ak luñ ca war a jubbantiwaat yoon woowee nag ak bëgg ko yaatal ba mu dem fépp ci Sénégal mbaa mu génn ko moo waral konkuur bi am concours ba moo waral formation bi am kon ñu fas yéene mu doon boo xam ne am na yu ko jiitu woon te yeneen da cee war a topp ay bis gépp ngeen lëlu ko fii kon C3S sëñ Fallou Seck mi nga xam ne moo fi teewal sëriñ sekk ñu ngi koy jottali cantuk sëriñ Daara sépp waaye cantuk waa rabitatul madarisul quraaniya bi nga xam ne ñoom ñoo taxawee taxawaay bii sëñ Moustapha Diop ñi ngi lay sant bu baax ci turu ñëpp ndax sa temps bépp def nga ko ci ci nas ci nocc démb nga jóge ba ndar te jóge woon fii fekke ubbi bi fekk ci lëf demaat delsiwaat dàq si lii moo tax say juhut kenn du ko nattable ci liggéeyu lislaam bi waaye rawatina ci alxuraan kon ñi ngi lay wax jërëjëf sëriñ Saam ñi ngi lay sant ndax yawit taxa sa taxawaay li ñuy wax ci sëñ mustafaa rek la ñuy wax ci yow bind guddi bind bëccëg trois heures di matin boo ko yónnee woon ab texte wala nga message ko wala ngeen wax bala moom a vingt quatre heures sëñ Sam la ca war dana ko def mënoon naa toog nag ci piliyaanam waaye su boobaa lii muy jël di ko joxe ci alxuraan ak di ko jariñ nit ñi su boobaa loolu am na ñooñ farlu di ko jëli duñ ko am kon ñëw gi muy ñëw ak woyof la waaye moom woyofut naka noon sëñ Mbàkke Sourang mi nga xam ne ci yaatal mbindum alquran yaakaar naa taxawaayam ci biir kenn du ko naatable naa xiika naka an daaray boppam ak taxawaayi boppam waaye ci biir yaatal mbindum alquran am na jéego yu mag a mag yum ciy def bokk mbokk yépp waaye mu fés ca lool ñëw bokk ak sëñ Saam takwiin bi ak sëriñ oustaz Sall mii nga xam ne moom itam bu ñu leen waxoon fa muy jógee daanik frontière la xaw a doon gis ngeen li ko ci yàlla may ci wàllu mokkal alxuraan ci man koo bind ci am ay boole ci yitte woo ko amul jenn yitte judul lii kon mbokk yi lii ak cantante la goo xam ne cant gi day dellu ci suñ borom mi jox mi joxe tawfiix ju toll ni nu am lii sëriñ maam Cheikh Ndiaye ñu ngi lay sant bu baax bu teewee ak bu soree lépp loxoom ak xelam mi ngi ci biir liggéey bi waaye nag sëñ Abdou Seck mi doon coordonné lii nga xam ne moom daa mel ni est-ce que sëñ Abdou dana sonn déedéet du sonn yéen ñëpp xam ngeen ko kon nag mbokk yi euh, cant ñeel na leen yéen ñëpp sëriñ Abdou Abdoul Khoudous Silla moom itam gis ngeen. wàllu daaniki moom moog ab moog Abdou Seck ñoom ñaar dañoo mel ni ay seex ci liggéey bi da caa boole nag markas bii ñu nekk tey di ko fi defe moom moo ko taxaw ci ndigalu sëñ Fallou Seck mi féete ko fi di ci def liggéey yu ama am solo ba ci biir yaatal mbindum alxuraan foo jaar da fa fekk jeexit loo xam ne moom mi yoona ma nga ci biir loxo ma nga ca kon buñ doon lim benn par benn individu bu nekk buñ leen waxoon taxawaayam da ngeen xam ne kon yaatal mbindum alxuraan fi mu egsi wax dëgg yàlla fii rek la mën a egsi te war na koo weesu ndax loxo yi ko téye kon mbokk yi ñaari téere yi nga xam ne aljawharul munazzam ak mawridu zamaan nga xam ne ci wàllug rasm ak dabt bind ak maas alquran nam wàcce woon jaar fi mu jaar ba tey la ca boroom xam-xam ya wax segg ko tënk ko ñu defal leen ko ab tënkaat ci ak ayubis jox leen texte yi nag bu noppee jox leen shahadatul musharaka luy wane ne yéen ñi diplôme bi mooy wane ne bokk ngeen ci formation bi te dana tegtale ne bu ëllëgee bu ngeen yoroon téere bi ku ñëwoon bëgg ngeen leeralal ko ko am ngeen diplôme ne ay boroom xam-xam taxaw nañ ci seen kanam jox leen ci loo xam ne nii bu xam-xam doon doy ñu ne tënkal nañ leen loo xam ne bu ngeen ko tasee saraako doy na sëkk kon loolu wax dëgg yàlla am ngeen mérite waaye nag ñuy jagleel nag beneen kii soxna yi nga xam ne ñoom soxna daara yi nga xam ne dañoo yore ay daara di jàngale nekk ne ca ginnaaw ñoom itam ñëw fu góor ñi taxaw ñu taxaw fa lool bu ñuy wax parité ak nangam nangam ak yëpp loolu mooy fu góor ñi baaxee jigéen ñi fu sañu ñoo def lu dul baax loolu mooy parité. kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. kon kàddu gi ñu jox ko kenn ci ñi nga xam ne ñoo doon formé bokk yi kiy wax ci seen kàddu mooy Serigne Sàmbake kon sama xatu Cheikh borom Sam fal tatafaddal mashkura bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi ziyaara kilifa yi fi teew yëpp bàyyiwuñu kenn kilifa yi nga xamante ni bii ñoo maanaam taxawe lii ak euh, kilifa yi nga xamante ne bi ñoo doon jàngale ak kilifa yi nga xamante ne bi ñoo ñëwoon fii bokk ak ñu liggéey bi muy yéen ñiy jàng si euh, man la boroom saam euh, dëkk Daaru Salaam suñu xam daa am lu solo muy sant rabita bi rabita bi moom mi mooy secrétaire bi mel mii maa topp ci moom kon lii rabita bi moo ko taxawee ak ni ko si Moustapha ànd ko ak c 3 kon loolu ngeen xam ko bu baax waaye bala ñu def dara rek dañuy sant euh, société bi nga xam ne mooy c 3 moom ñi nga xam ne ñoo am maanaam li tax lépp am ci ñoom la sababoo mbaax gu ne am foofu suñu borom bi tàmbalee kon ñoom ñi tax lii mën a am ñu ngi leen di sant bu baax cant goo xam ne ñun ni leen di sant yéen ñooñu noon yéen noonu noonu ngeen leen di sante ah di ko teg ci loxo Serigne Fallou mi nga xam ne moo jiite yaatal mbindum alxuraanul karim mi organisé lii mu tegal ñu ko ci turu Alaaji Serigne ak mboolem ñi nga xamante ne bi ñoo ne ci société bi. di sant itam maanaam lañ na almiye bi muy commission muy scientifique bi nga xam ni ci yaatal lépp lu jëm ci wàllu xam-xam ñoom ñoo ko yoree sëriñ Xaadim jiite ko ak sëriñ Moustapha mi ak euh, ñi ñu àndal ñëpp man li sëriñ Xaadim waxee wàllu secrétariat bi moom laa yore ay ci wàllu texte ak mbind moom laa yore ci liggéey boobu ak lu ci aju kon commission scientifique bi nga xam ne saa lu mel ni ñëwee bu jógee ñoom ñooy ñoom ñooy taxaw xool nan lañu def pour mën a am ñu ngi leen sant bu baax sant itam ah, ñi nga xam dañoo nekkoon formateur yi muy sëñ Moustapha sëñ Mbacke Sorong xam ngeen leeral na fi lu bari lool ak sëriñ saaliw Sall moom itam mu leeral lu bari lool ci jawhar bi rawatina nag côté bi nga xam ne mooy wàllam muy lu ay ci ay boole yaakaar naa ne man bu doon man dong boole moom dana dana dana dana réer ndax man xamuma ci dara wax dëgg yàlla. tey itam nekk na loo xamante ni bi turaas la ci ci téye alxuraanul karim fii ci réew mi bokk na nag ci ñi nga xam ne saa yoo ciy wax sa xel dana dem ci moom kon ñu ngi koy sant bu baax di sant itam ñi nga xam ne ñooy yéen ñii ñëwoon tey ndax wax dëgg yàlla suñ borom ba muy wax maanaam xam-xam moom sëri sëñ bi sax suñ borom bi muy wax xam-xam jëfe lay jariñ mboolem ku xam dara rek amoo yàlla mayitu la nga sañ toog faaw nga jëfe ko jëfe ko nag bokk na ca la sëñ bi waxoon ca bam naa nit ki li lan moo tax ngay jàng waxoon na ci yaakaar ñëpp xam ngeen ko muy maanaam denc ak fas yéene tegaat na ca nafu xalqi dil jalaali fas yéene jariñ mbindeef yi kon loolu rek moo tax ñun ñuy jóg fu ñu toll lépp lu ñu mën ci wàll googu ñu xam ne liggéeyu sëriñ bi yaatu na kenn ku nekk am na foo xam ne mën nga faa jàppe ñun xam nañ ne wàllu xam-xam xëy na sax xamuñu lu bari waaye li ñu xam daal fas nañu yéene ci liggéey Cheikhuna na Khadim lu ñu si mën danañ ko def ngir moom kon ñi nga xamante ne bi kon yéen ñi ñëw ngir loolu mën a sotti amee nañ leen cant bu baax a baax ndax lan seen taxawaay ci dawra bi dañ ko seetlu bu baax maanaam ni ngeen di musharaka ni ngeen di bokkee ci njàng mi day sawarloo kiy jàngale te xam nañ ne bokk bi feeñ na bu baax a baax a baax a baax ci laaj yi ñu doon laaj feeñ na bu baax muy ci góor ñi muy ci jigéen ñi wan nañu itam itewoo ngeen ko bu baax a baax a baax baax soxla ngeen ko bu baax xëy na nag ngeen xam ne lu ci am ci njuumte doomu aadama day juum gis naa ci am njuumte ci bi ma doon dégluwaat kii lu mel ne taraal jamaan yi nga xam ne dañ ko génne ci xaayda maanaam mam ñu al wasl da cee bokkut dafa mel ne am naa fu mu wax ne dañ koy xëcc loolu kenn waru ko xëcc mais alif bi rek ca lañ doon wax loolu njuumte la ñu daay ko xel bu baax da ngeen kon ñu xam ne yéen amuñ seen fay ni ngeen doon laajo ni ngeen doon duggee ci mbir mi bàyyi seen waxtu wër bër war a noppalu loolu rafetlu nañ ko bu baax a baax dañuy kontaan la bu ñu gis ñuy jàng mel nii ñooñu rek lañ sawar a liggéeyal kon loolu ñu ngi leen di sant bu baax a baax ñu xam ne nag tànnoon nañ téere bu am solo muy muy Zeylu Mawrid Mawridu Zaman xam ngeen ne imaam Mouhamad Ibrahima Chouraysi muy alxaraz euh, daa jël téere muy Mawridu Zaman téere la boo wax mën nañu ne dafa xaw a niru jawhar ci lu bari ndax daa jël aqiila bu Shaatibi jël muqna bu imaamu Daani jël munsif bu bu bu balal bu yooyu bi mu ko jëlee ak usulu dabt ak mu ak muhkam yooyu yëpp mu way ko tuddi ko mawru zaman ba mu demee ba ca mujj gën a ba nga xam ne téere yooyu fañ waxoon ci wàllu rasmu fa la yem mu jëlaat ñaari téere muy muhkam ak usulu dabt bu bu abu daawud ak muhkam bu imaamu daani way leen tuddi ko zeyl mawru mawru zaman nga xamante ne bii mën naa ne ni mu ko indee wax dëgg yàlla wuute la ak jawhar ndax day détaillé détaillé yoo xamante ne bii mën na ne jawhar indee wut noonu kon jawhar ñeent téere yam way moom lañ bokkule waaye ci dabt ni mu ñëwee moom moom benn téere la mën nañ ne ndax way na ko tënk na ko neex naa mokkal te bariwut bariwut matul ñaar téeméer bayit loolu kenn ku nekk mën na ko mokkal kon ñu ngi ci soññ bu baax a baax ñu xam ne itam mën nañ ne nag comme ni ñu ko waxee for dañ doon maanaam Euh, daw rek lañ doon def dawra bi gàtt na waaye yaakaar naa ne ah fukki bunt yi nga xam ne moom la dabt bi jàngale taxaw nañ ci man mën na ci xaaj bi ndax xarakatul yaakaar naa ne jàng nañ ko bu baax a baax ba tey yaa ku ci nekk am na ci lu wóor loo xamante ne bi xam nga ko muy wiin ak maanaam noonu na wax nañ ci lu bari sukkoon xam ngeen ko bu baax ñaata xeet la ñaata fu mu jógee yaakaar naa ne lu ay ci euh, sàdda niñ koy waxee ñaata sàdda moo am xam ngeen ko bu baax yaakaar naa ne laay ci maanaam xëcc ko muy màtt wax nañ ci bu baax a baax yaakaar naa ne ñëw nañ ci lu mel ne maanaam idxaam idxaam ak ak izhaar ñëw nañ ci bu baax a baax eh, ci ci la mujj nag nga xamante ne bii muy lu am solo muy muy nan la ñuy maase maanaam eh, alhamza muy ahkaamu babtil hamza ci lañ tolloon ah yàlla dogal na nag dawra bi foofu la yem waaye man nañ ne xaajal nañ ahkaamu babtul hamza kon li ëpp solo maanaam ci fukki bunt yi la ca gënoon a jafe mën naa ne jàng nañ ko la ja des bariwut suñ borom bu dogalatee xëy na société bi dana sàkkaat lu mel ni ànd ak ak lañ ne almiya ngir ñu àggale liggéey boobu ñu xool nan la ñuy def daal ba xam-xam bi daal lu ñu man ci liggéeyal yàlla ci côté boobu ñu def ko ànd ko ak yéen incha allah kon ñu ngi leen sant bu baax a baax ci seen teewaay di sant bu baax a baax ci seen euh, musharaka di sant bu baax a baax ci seen i juhóot di ñaan nag ngeen continuer seen bopp liggéey bi xam ne ay bunt lañ ubbi bunt yoo xam ne kenn ku nekk tey mën naa ne doon nañu wax loo xamante ni bii du ngeen ko fekk ci ci dayrilu ci dayrilu xayraan ci ci ci sara bi lépp lu ñu doon man ci fu fu nekk la ñu ca wax la ci ëpp jël nañ ko wax leen ko waaye nag yéen da ngeen kondi seen i gëstu ci liñ leen jàngal ak lañ leen jàngalekut ngir boole gi bu ñëwaatee mbir mi gën a yomb kon yaakaar naa ne Serigne Moustapha ci santaat rek ci ci seen juhóot muy commission scientifique di santaat bu baax euh, sarika bi tax li mën a am sant bu baax itam maanaam rabita bi nga xamante ne bii moo moo taxawal li ànd ko ak ak ak ak ak uh, sharika bi di sant bu baax sëriñ xàbbaam mi nga xamante ne bii moom la sëriñ bi jox lépp lu jëm ci ñaangal baax kër bi ak lu ci aju yoo xam ne li li liggéeyam la kon lu ñu fi def mën nañ rek moom lañ ko defal ndax lii mën nañ ni moom la waroon uh, taxaw di am ay xalaat di taxaw yu demee ni di ko taxawee loolu kon lii lenn la ci ay liggéeyam kon moom lañ ko doon defal ñu ngi koy sant bu baax tey bu fekkente ne bi am nañu ko fi teewal ci seen Euh, euh, lii daal sëriñ bi mooy kàddu yi nga xamante ni moom laa jottali ci turu maanaam euh, formateurs yi ñoom ñëpp muy sëriñ Mbacke Sorong muy sëriñ Saliou ak ñi ko àndaloon ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu. kon jërëjëf samaahatu Cheikh al Muqri sëriñ kàddu gi nga xam ne jël nga ko ci turu formateurs yi di sëriñ Mbacke Sorong. di sëriñ Saliou Sall euh, ak ci sa tur sëriñ Sàmbake ak ñi leen doon jàppale ku mel ne Cheikh Abdou Seck fa jazakumullahu xayran kon léegi bokk yi ñi nga xam ne ñoo doon jàng am nañu kuy wax ci seen tur kon sëriñ Mouhamad Jaxate bismillah alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiya mursalin seydina wa mawlana muhammadin al wa ala alihi wa sahbihi wa xeyra wa mutihi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen di leen sant suñ Moustapha incha allahu taala dinañ tontu ci laaj boobu waaye balay boobu comme mbokk yi dañoo yónni woon kàddu yi cant jëmale ko ci liggéey bu am solo bii ñu jotti kàddu yooyu bu noppi jéem a tontu laaj boobu incha allahu taala kon mbooloo mi nga xam ne mooy sëriñ daara yi nga xam ni ñoom lañ doon forme ci ay bis bi ci ñaari xam-xam yu am solo muy ilmu rasmu ak dabt muy bind alquran ci araf ya na mu war a mel na mu war a toll na mu war a bindoo muy ilmu rasmu naka noonu tomb alxuraan ak maas ko fa maska yi war a nekk fa tomb yooyu nekk ci tomb yu wóote yooyu ak maska yi muy ay xam-xam yu am solo yoo xam ne jàng nañ ko ci biir ay bi bii mbokk yooyu ñoo yëkkati seen kàddu yi sant di ko jëmale ci alxaaji Sëriñ Seck mi nga xam ni ci taxawaayam la jëf ju am solo ji amee fekk yeneen jëf yoo xam ne yàgg na koo jëf ci alxuraan ñu koy sant cand goo xam ne am na fu ñu tàmbalee waaye amut fa muy am di ko jaarale ci sëriñ Fallou Seck mi nga xam ni moom la doxale liggéeyam ak mbooloo mi ak alañna almi thaqaafe bi nga xam ne sëriñ Xaadim Ndiaye al imaam moo ko jiite ak sëriñ Moustapha Diop Ndar ak mbooleem ñi ñu seqal liggéey yu am solo yooyu ñi nga xam ne ñi ngi koy def ci yaatal mbindum alquran euh, mbooloo mi ñi ngi leen di sant bu baax a baax waaye naka noonu tam ñi ngi sant sëñ Abdou Seck mi nga xam ni moo coordonné liggéey bi ak sëñ Abdou xuddoos mi nga xam ne mooy boroom daara ji ñu ngi leen di sant cant yoo xam ne daal am na fu muy tàmbalee waaye amul euh, fu mu fu mu fu mu yem waaye tam di sant jàngalekat yi tàmbalee ci borom saam ci moom nga xam ne moo doon jàngale mu dabt di ko jàngale ci pédagogie boo xam ni kenn ku nekk ñi doon jàng xam nañ bu tàmbalee du ñu bëgg mu bàyyi waaye tam di sant Serigne Saliou Sall ci ilmu rasmu ak boole alxuraan yi nga xam ne moom tamit kenn ku nekk xam ne am na ci ak métti sax xam na ko bu baax a baax waaye di santaan tamit suñ mbokk sore bi nga xam ne moom mooy dikk def ay commentaire ci wàllu mbind meeg tomb yi waaye daal di koy méngaleeg yaatal mbindum alxuraan mi nga xam ne moom la commission bi di saytu ci niñ ko bëggee nga xam ne dina tax euh, liñ doon jàng gën a jige ñi ko doon jàng ñu gën a xam tam li ñuy xaar ci ñoom ci. wàllu mbind mi suñ mbàkk sur moom tam ñu ngi koy sand ci taxawaay am solo yooyu di sand mbooleem koo xam ne jàppoon na ci njàngale mi eh, ak niñ ko indee eh, bu ko defee nag sunu yëg comme ni ko suñu Moustapha Diop waxee eh, xanaa yëg-yëgum rek koo xam ne li nga ko doon jox bëgg na ko te li nga ko ci jox doyu ko di sàkku kon ci ñi nga xam ne ñoo amal lu mel nii ak képp koo xam ne mën nga ko nga dimbali dongo yi ci taxawaay yu am solo yi ndax kenn ku ne xam ne alxuraan daa am nu ñu koy bindee alxuraan daa am nu koy jànge ngir alxuraan nag des surtout ñun murit ci niñ ñoo xamee ak alxuraan ci suñu culture ci niñ koy bindee ak niñ koy jànge kon baaxu na taxawaay yu mel nii am kon nag foofu sax lay jaare jaaree santaal suñu baan mi nga xam ne moo jiite liggéey bu am solo bii mooy wàllu daara yi xamal ni ko liggéey bii nga xam ne C3S mi ngi koy def. te sax man dinaa ko jéem a wolofal mooy doomi mbaakol rek yoo xam ne ca mbaakol la dëkk te fàttewul mbaakol xam naa C C c 3 moom ay tubaab la te man wolofal dama ñor lool kon dama koy fàtte rek dama koy tudd rek doomi mbaakol joo xam ne fàttewul mbaakol ak lañu ñu xamee woon waa mbaakol ci jàngal ak xuraan ak liggéey ba mu nee ci liggéey baat fàttewut daara yi kon noonu ko C3 di defee ci liggéey yu am solo yi njabootu Sëriñ Tuubaa gi jaar ko suñu xabbaan ba ci raabet bi liggéey yu mel nii waa dëkk bi soxla nañ ko ndax comme ni ma ko waxee jàng alxuraan ak bind ko ngir mu wér faaw mu am fu mu tege kenn ku ne xam ne suñu mag ñi sonn nañ lool ci bind alxuraan te nañ ko war a bindee sonn nañ lool ci bind alxuraan te nañ ko war a bindee ca alif yaag tomb yaag la war a xongal la war a mboq maîtriser woon nañ ko waaye nag boo xoolee ci wàllu jàng dangay gis ne ci seen jamono jàng moom desoon na ci wàll gii ñu jëm si nag ci jamono yi ñu toll nag boo xoolee tam day gis ni wàllu jàng gi. daara yu mujj yi farlu nañ ci ci wàllu ilmul qiraat wàllu tajwid waaye wàllu mbind mii nag day mel ni mag ña raw na leen ci day mel ni c loolu la seetlu ba bëgg a mbind mi nga xam ne kon ngir alxuraan des ci niñ ko war a bindee alxuraan des ci nañ ko war a jàng xam daa am jàngeenu boppam daa am bindinu boppam day mel ni ñaari yi leen mënu cee dem mag ñi nag rawoon nañ ñu ca mbind ma tam leer te waaye day mel ni ndaw yi tamit xaw nañu war mag ñi tuuti ci jàng. ak ci njàngin yu wér ngir ñu dajale ñaar yëpp nag day waral jataay yu mel nii ñu koy amal muy bari tey tey yaatu kon suñu yëg-yëg daal ci lii mooy soxla ko lool te ñu yëg ni mënuñu koo mënuñu koo ñàkk kon ñu ngi woowaat euh, Serigne Seck ak ñi mel ni moom te man ko ñu dimbali ñu ci jataay yu mel nii te jàppandal ko euh, foofu laay jaara tamit sant sëriñ daara yi ndax kenn ku ne xam ne sëriñ daara amul ak jot waaye gën na ko ñàkkati mooy bu nekkee ci ak bërëm nga xam ne daara ji da koy tënk ci suba yeeg ngoon yi ci bés yi muy jàng nga xam ne ci bër rek ci lay mën a dem lijjanti dara euh, ak ak ak ak noppal boppam daal léegi ci bër googu nag soo ko ci téyee ci diirub ay bis boo xam ne day jóge ci ay barab yu sori di paas jóge ci ay barab yu sori su góorgóorloo ba am otoot mën naa am gasoil bu mu ca def moom yomb ko euh, te sëriñ daar yu baree bari sax mënuñu seen bopp kon yu mel ni buñ koy taxawal tamit bàyyi waare ci xel sëriñ daara boobu ndax sëriñ daar yi bari ay boroomi kër lañ ngir bëgg a sàmm dina tax nañ teel a samp kër waaye sax duñ ko samp ci ak man kon ñëw gi ñu ñëw fii ak diir bi ñu fi toog xëy na bëgg xam-xam ak xam ni lii seen métier lépp lu ñu leen ci war a jox te mënuñu ko ñu man koo jëli ñu bëgg koo jëli bëgg koo jëli waaye sax ñëwuñ ci ak man euh, toogee wuñ ci ci ci formation bi ak man tamit mbooloo mi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi ñu bàyyi ko xel ci loo xam ne formation bi lu mu yàgg-yàgg kenn du absenté te ñëpp dañ mën a teel a ñëw te dañ ko xaar ba mu jeex loolu lay tax loolu mën a am yaakaar naa mbooloo mi fi nekk yàgg nañoo taxawal ay séminaire ca na war a demee loolu ñu bàyyi ko ca xel na ko doon daam di sàkku ci moom moom Serigne Seck ak ñi mel ni moom euh, ñu indil ñu daaray jàngal ay mag ndax jàngal ay mag moom wax dëgg yàlla ci dëkk bi xamoon nañ ko fi sëriñ bi moom yaakaar naa jàngal na ay mag ci ay tomb ak ay rëdd kon ñi ngi sàkku ci C3S mu indi ñu daara joo xam ne day jàngal ay mag wutal leen ay waxtu yoo xam ne moo xam gudd lay doon moo xam ngoon lay doon ñu jàngal ñu suñu mag ñi ak suñu jigéen ñi ndax bëri na lu ñu réer ci seen diire ba ci alxuraan ji bari na ñoo xam ne réer nañ ko bëri na ñoo xam ne ci mag ñi faatixul kitaab mokk luñ ko kon loolu ñu ngi ko ciy tàllal loxo waaye ñu ngi koy tàllal loxo tamit ci formel ñu suñu jàngalekat yi nga xam ne ay jàngalekat lañ ay yarekat lañ war a jàngale alxuraan waaye war tam jàngale diine war leen a yar ci diine eh, ñu amal ñu ay séminaire yoo xam ne sëriñ daara yi dañ leen di tàggat ci gone nan lañ koy yare ci diine gone nañ lañ koy jàngale diine loolu sëriñ daara yi soxla nañ ko bari na ñoo xam ñi ngi jàngale alxuraan waaye jàngale wuñ diine amaan man nga wax tamit yëre wuñ ci diine kon loolu tam ñu ngi ko ci tàllal loxo kon daal suñu yëg-yëg sëñ Moustapha yéegi ko sant la ak doon jéema a jottali kàddu yoo xam ne mbokk yi ñoo ñu ko yónni lu ci manqué nag e, ci nun ñii la noo ngi santaat bu baax baax nag sëriñ Seck doomi Mbakol yi nga xam ni fëttiwul lañ nga xamee woon waa Mbakol mooy liggéey ak jàngale alxuraan ak taxawuñu ca nekk xëy na ma ngi ci liggéey ba waaye kenn ku ne xam ne fëttiwut daara ji kon ñu ngi koy sant bu baax baax bu ko yi doon jàng tamit ñoo xam ne xam-xam yi ñu leen doon jox day xam-xam yoo xam ne dafa munta ñàkk ci ak yéen dafa munta ñàkk ci kuy jàngale nga xam ne suñ la ko joxee te amoo ci lu doy tamit da war dem wuti ko da ngaa war dem wuti ko kon ñu ngi leen ci soññiwaat bu baax baax ci mbooleem xam-xam yi nga xam ne jàngale nañ ko jàngale dañ ko fi mu doon loo xam ne ab sëriñ daara mënu koo ñàkk te wóor a toog sax ngir ñu jox ko ko waaye da koo war a wuti ndax yaa samp sa bopp ni da ngay jàngale alxuraan yaa sa bopp sa bopp ni dangay jàngale diine ab sëriñ daara nag war naa mën a jàngale alxuraan ci bind ko ak jàng ko waaye tam war naa mën a jàngale diine ci xam li muy digle li muy tere fan la tege ci alxuraan ak sunna séenante bi sallallahu alayhi wa sallam ngi jeexal suñu kàddu di ñaanal Cheikh mu Mountakha suñu borom yàggal ko te wéral ko. jërëjëf sëriñ Mouhamed Diakhaté ci kàddu gi nga xam ne. matale na ci liñ la dénkoon euh, li ci jëmit ci C3S sëriñ euh, Fallou Seck dégg na ko li nga waxet ci njàng mi di xam-xam bu mën la ñàkk te lii di ab tàmbali waaye tàmbali bu leer boo xam ne tax na ñi koy jàng ñépp xemmeem nañoo wéyal kon jërë ngeen jëf seen kàddu googu nga xam ne mooy kàddu ñu doon jàng kàddu coordination bi mooy ñu doon coordonné liggéey bi naa may wax kon ci seen kàddu bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa baraka wax sayidina wa mawlana muhammad wa alihi wa sahbihi di sant yàlla mu baax moom mi nga xam ne mooy tàmbali mbir moom mi nga xam ne mooy sottal mbir di ko sant ci may gim nu may nu tàmbali liggéey bi may nu it ñu tëj ko tey jii di sant it société bi di c ni ko bokk yi jiitu waxe ndax ñu ngi liggéey ci alal la leen ci yàlla jox ñu fab ca di ko doll delloo ci seen dono te mooy jàng alxuraan ak jàngale alxuraan ak bind alxuraan kon ñun ñi ne ci waar wi waaroo ko ñun fokk ñu sant leen sant alxaaji sëriñ bu baax mii jëwriñ ci sant Cheikh Mouhamad Fadli bi nga xam ne mooy ndawam ci biir waar wi santit rakkam yi feggoog moom ñu bokk di ko liggéey moo xam ci concours bi la moo xam ci jataay bi la santit formateur yi alhamdulilah ku ci ne ci ñoom da ngay jàpp ne xër gu kii jàng am moom mi jàngale am na xër gu ko ëpp njàngale di tax mu solo fii nii yéen jàng ngéen waaye ñoom it ci seenu jàng-jàng nañu ne ko ne ci ñoom balaa taxaw fii réegal yi mu fi war a indi ak masaayil yi dana ko seetantal seetaat ko ci téere ya nafaraat ko doog a dikk te bu du woon ak yéen amaana loola du ko def tey moo tax fi mu jàngal mag bi ko tax a baax mooy day tax a jàng moo tax mag ñuy wax ne dañ koy jànge waaw gone moom da koy jàngal waaye mag moom da koy jàngee ndax looy indi fii moom da ko waaj kon ñu di leen sant bu baax ci seen bëgg xam-xam seen xir ci waar wii di xam xamle ak yare yal na yàlla fay leen aw yiw ndax waar la woo xam ne li borom risaala di wax wa awlaa maa uniya bihi annaasixuun wa raxiba fiihi raaxibuun isaalu alxayr ila quluubi awlaadil muminin li gën a yey kii sonn di ci sonn di ci jeexal dooleem di ci yaakaar tuyaaba suñu borom mooy fab ndaw yii di njabootuk yàlla di njabootuk jullit ni yar leen ci téere bi yar leen ci diine bi kon yal yàlla fay leen aw yiw yéen it ñu leen di sant bu baax bokk yi wax nañ ko waaye ni ma ko waxee woon ci commencement ba yéen yéenay jàngale rabbi zidni ilman yéenay jàngale di borom bi wax ne yow sama borom yàlla nang ma dolli xam-xam kon formation continue bi nga xam ne métier yëpp ko soxla seen métier ko gën a soxla ndax yéen a métier woo métier wu métier mu yonent sallallahu alayhi wa sallam métier mu mooy at tabliir jotal yaa ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayk macha allah jamono bu nekk ak ña nga xam ne ñooy rusulu rasulillah antum rusulu rasulillah yéenay ndaw yi ka yàlla yónni woon yéenay nuwaab an rasulillahi fi tabliix yéenay kuutaayam ci liggéeyam ba nga xam ne mooy jotal fal yuballigh ash-shaahidu minkum al-ghaa'ib keroog ba bi wàccub liggéey di dénkaane ndénkaan lii tey jii loolu waxoon ku ci jot ku nekk na ko jottali ka ca jotagul suñ borom baaxe leen jamono bii nu toll ci sii suuf yéen ca wuutu yonent bi ak saxaaba ya ak gaa yu baax ya ci jotal gi yal na yàlla fay leen aw yiw alquran dañ koy jàng macha allah yéen ngi yitti woo tey xiraa bi bu baax xam warsh ku ci bëgg warsh xam xabs ku ci bëgg xabs ku bëgg xiraat yi desit yaa ngi ciy sonn dañ koy jàng dañ koy bind dañ koy maas kon ñetti fànn yëpp tey yéen a ngi ci moo tax rafet nañ njort bu baax na téere bii day dem ca kanam faw di dem ca kaw faw ndax ñi koy dénkoo waxtu wu nekk seen yitte mi ngi gën di bees seeni xel ji gën di ubbiku ñu gën di bari pastéef ci lu koy jàllale moo tax alhamdulilahi rabbil alamin alquran moo waxoon ne wa yaba allahu illa an yutimma nuura suñu boroom dafa xas-xas loo wax ne lànk naa fokk téere bi dem ci kaw dem ci kanam alhamdulilah rabbil alamin kon yal na suñu borom fee na aw yiw te yokk leen doole baatin ak doole zahir euh, di sant bokk yi nga xam ne ñoo doon encadré liggéey bi Cheikh Abdou Seck la ko tàmbalee ca inscription ya ak yëgle ya ànd ko sëñ Abdou Khoudous macha allah boobu ak tey lu ci war ci gunge liggéey bi rek ci jokkoo bi ci nos gi ñu ngi koy def yàlla yàlla fay na aw yiw te ay sëriñ daara lañu comme nun comme yéen kon lépp rek nuurun ala nuur nuurun ala nuur incha allahu ay leer yu gëndoo rek la kon yàlla na fépp leer kon cheikh Mouhamadul Xaban Mbakke ibnu cheikh Mouhamadul Fadil moom mi nga xam ne moom la sëriñ Muntaxa alxalifatu am li muridin yàlla na fi yàgg te wér sëñ Xaban ñu dénk mbirum daara yi kon lii ëpp liggéeyama lii ci programme am la bokk moo tax biñ koy def wuutu ko ci ba tollu ci jeexal ko ñu ne kon nañ ko ko wax Cheikh Mouhamad Fadil jokkoo ak moom démb xat na waaye téewul mu wax ne bu soobee yàlla dina fi yebal ay ndawam kon ñi ko fi teewal ñu ngi leen di dalal di leen jox seen wàccuwaay te di leen nuyu di leen ziyaara di leen jaajëfal di xam ne it inna rasula bi qadril mursil ndaw lu nekk daraja yi ku ko yónni la am kon seen teewaay bi mooy teewaayu sëriñ xaban te teewaayu sëriñ xaban ci liggéey bi mooy teewaayu Cheikh Mouhamadou Mountakha kon yàlla na yàlla guddal aw fanam te yokk ak wéram yéen ñi nga xam ne it yéen ay ndawam ngeen yàgg a dox ci ab service yàgg ko rafetal Cheikh Abdou Fattah bàyyi ko ci sëñ Mouhamad Xabbaan Mbakke di wax ci turam teew fii ci ndigalam kon bisimilah kàddu gi mi ngi noonu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa bokki jullit yi bokki taalibe yi gannaaw ba nu sant yàlla julli ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam di sant Serigne Touba xaadimu rasul di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha sunu borom yàggal ko te ko. ci barkeb Cheikhul Khadim ñu yëkkati kàddu kàddu yu ndigal yu bàyyi bàyyikoo ci alxaaji xabbaan Mbakke moom Cheikh Mouhamadul Fadil ñu teewaloon ko fi teewaay boo xam ni nuñ ko teewe rek matul asaka ci jëmmi boppam ji ndax bi ko sëriñ bi jotee wax ko yittey liggéey bi ak yaatuwaay bi ak rafetin wi moom la doon yitteem bu ko mënoon mooy teewal boppam waaye yonent bii mu yónnent yónnent la boo xam ni da ko gunge ak yéeneem ak pas-pasam ndax am soloy liggéey bi ngeen di liggéey diggante bind ak maas bokk na ci li ñu sàmmal téere bi ba mu fii kon jant buñ dee fàttaliku ak a soññee ci yoon wan lañuy jaar ba des gi gën a gën a yaatu gën a sax ak cant rek a cay jiitu sëriñ baa ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm di wax ni mbooleem yitte ju ngeen def ci liggéey bi rek yi ci ëpp mi ngi ciy jot mooy formation yi nga xam ni yéen ngi koy amal ci dëkk bi ci xeetu njàngalin wi ak ci taxawaay yi bi ko ci gën a yitteel nag bokk na ci jàngale ci lu lu dul fitna ndax mel na ni ku xam daaray alxuraan xam ab sëriñ daara ca bu njëkkoon ak fii ñu toll dinga xam ni coppiku am na lool te li ci jiital coppiku gi li tax mu gën a rafet mooy taxawaay yi ngeen amee kon sëriñ baa ngi sant bu baax te di leen gërëm sëriñ Moustapha mii waxtu wu nekk dañu jot ay yëngoom waaye muy méngook yëngu yii rekk ci waxtu wu nekk ndax bu ngeen tollee ci saytu am mbind ak mas nan lañ koy jàngale wala nan la def ba ndaw yi di ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax loolu yitte féetewu ko kaw sëriñ baa ngi sant bu baax mu ngi gërëm bu baax la doon yéeneem nag mooy mu ñëw teew ko ànd koog yéen waaye jotaay yi ngeen ciy amal wala def yu yi ngeen ciy def te di ko defal Cheikhul Khadim mi ngi ñaan sunu borom subhaanahu wa la mu gàttandul leen boppam te kàttanal leen ba li ngeen ci am yéene def ko ca sunu borom mottali ko sant nañ ci bu baax gërëm nañ ci bu baax a baax a baax yàlla xam na ni bi ñuy dugg ci kër gi rek mu ngi mi ngi woote di wax ni euh, yónnent bi moom lu xat la ci moom ndax am mbind Serigne Touba Cheikh Abdou Lahad da ko caa mas a soññ soññ ci mboolem ñi mu bokkaloon Serigne Touba te boobee ak tey boo ko xoolee lu mu gàtt gàtt dana jege ñeent fukki kon yéen a ngi feddali lu yaatu di feddali lu rëy loo xam ni nos la boo xam ne ma nga tàmbali woon ci Serigne Touba Cheikhul Khadim kon ñu ngi leen di ñaanal bu baax suñu borom dolli leen a kàttanal dolli leen a wéral defal leen ay xéewal te xiir leen ci lépp lu baax. waaleykum salaam wa rahmatullah. Abdul Fatah ibn Cheikh Mouhamad Xabaan Mbakke. <clears throat> qad ballaxtumu risala wa addaytumul amaana kàddu gi gàtt na waaye rafet na te tënk na te macha allah seen teewaay bi xàmmee wuñ ko ak teewaayu ki leen yebal ndax inna rasula bi qadril mursil waa kër gi gi saytu liggéey bi c 3 alhaji Sëriñ Seck ak Cheikh Mouhamed Fadil ñu ngi koy delloo ab ziar di ko joxaatuk cant di feddali kóllëre ak moom ndax ñoom ñëpp njabootul dëkk bi lañu njabootul Serigne Touba lañu te moom muy jëwriñu liggéey bii ci ndigalal ki fi nekkal Serigne Touba kon ñu ngi feddali ak moom kóllëre ak liggéey bii te it incha allahu taala fu ñu ko defee te it mu yëg ko daañu fexe sax ba mu yëg njëlbeen ga di yëg buñ te it di ko teel a sax di ko teel yëg kon jërëjëf. fa jazakumullahu xayran mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel ci jataay bu tedd bi eh, di jiital ci nuyoo yi ak siyaar yi saahibul fadila sëriñ Tuubaa Cheikh Muhammadul Muntaqa ñaan suñu boroom yokk aw fanam ak wéram gën koo kattanal ba liggéeyu lislaam bi ci loxoom yóbbu ko fu kaay njort yëpp te naandu ko ak moom ci barkeb sëriñ bi di jaajëfal bu baax bokk yi nga xam ne ñoo doon taxawee liggéey bu am solo bii eh, tàmbalee ko ca alaaji sëriñ mi jëwriñ ji jaarle ko sëriñ Fallu ak bokk yi nga xam ne ñoo koy taxawu sëriñ Moustapha sëriñ saam ak ñi ñu àndal ñëpp ci taxawaay yu am solo yii di encouragé bu baax nag mbokki daara yi nga xam ne ñoom la liggéey bi jëm si ci ñoom tamit liggéey bu am solo boo xam ne ni ma baaxoo di ko wax waxtu ne di ci soññee ak di ci ñaaxaate ndax xam-xam da dul doy moo tax ku am kuraasu ubbi daara nekk ca waaye yëg-yëg yëg boobu tax saa boo gisee forsa bu mel nii nga jëkkante ko loolu lu am am solo la am na jamono xawoon naa jafe ku jàng ba yor daaraam ñaare boo koy wax mbirum jàngaat day defe ne sax da koo xaw a yàpp waaye mbir la moo xam ne nag ku ci mos dara rek waxuma la yow waaye bu ëllëgee yaway woote wootewaat rawat na yii nga xam ne moom ay sew-sew la yoo xam ne nit mën na koo mànkile te du ko gaaw a yëkk ilmu dabti war rasmu eh, dafa bokk ci am solo lool tey téye alquran ba tee koo ndax bind alquran dafa bokkut ak bind arab dafa bokkut ak bind arab bu nit buñ doon imlaa tey koo xam ne dafa dégg arab kese nga koy imlaa ci alxuraan ci nga koy xame te jëmmi bind ci boppam xawa wàññiku moo tax kon sëñ Fallou liggéey bi liggéey bu ama am solo la boo xam ne suñu borom tabaaraka wa taala mi wàccee alxuraan te di ko wattu daa mel ni moo leen ko ilham waaye jëwriñam ji it xaadimu rasuul mi nga xam ne dafa nekk ni mu nekk xaadimu rasuul la nekke xaadimu kitaabillah jeexal ci dundam gépp moom ngeen koy defal ndax ku ne xam na ne bind moom fekkoon na ko fi waaye dundalaat na ko dundalaat na ko ba nuru na ne li ci des ci réew mi ci barabam bii ak li ci xaw a aju rek fi la gën a dese yaakaar naa ne commission bi yor loolu tey dugg ci biir réew mi ñoom xam nañ ci loolu dara kon su jamono doxee ba mel ne lu ko mu mu tàmbali fee wayef képp ku taxaw ci lu koy dëgëralaat taxaw nga ci lu ko mat sëkk ndax alquran jàng ko mokkal ko waaye bind ko mbind mu wér daa bokk ci li ko suñ borom di sàmme moo tax ñu ngi ciy sant bu baax a baax a baax a baax te di ci soññi bokk yi ci luñ ci góor góorlu te liñ fi jële it ñu fexe muy yaatu yaatu gi moom xëy na bu ginnaaw ku fi jóge ku ne ñaari ci daara ngay dellu foofa lay tàmbalee ñu gën cee góor góorlu bu baax a baax a baax a baax euh, yi mu àndal yëpp ba ci boole yi nga xam ne suñu mag ñi ci la ñu doon gën a tënke te moom it mu meloon ne daanaka bu doon gan danga naan jël nab saagam bay bëgg a dem waaye lu mel nii dina ko delloosi ñi ngi ko doon topp ci groupe bi di gis euh, juhuut yu am solo yi nga xam ne mbokk yi ñu ngi ko ciy génnee kon loolu ñu ngi ciy sant bu baax a baax a baax a baax ndax. Euh, moo xam muy jëmmi musaabaxa bi ci musaabaxa ba ci boppam bu bind ba ci lii nga xam ne moom it daanaka xëy na dañu xamul fu ni sëñ Saal ni sëñ Muntaxa di wax dañ leen ko dencaloon waaye daa mel ne ku xalaat jëm ci musaabaxam bind rek lii la lii la sa xel waroon a jëkk a dem lii la sa xel waroon a jëkk a dem dafay yokk ngóora ci mboolem ahlul quraan kii jàng ak kii jàngale yépp ndax képp ku yor daara di jàngale te bëgg sab dongo di bokk ca mbind ma soo déggee lu mel nii dana la yitteel loo ca man danga ko def waaye koo amit da da ko ca indi nii musaabaxa yi ñuy def ci tari di soññee ci jawda njàng mu wér mu rafet noonu la musaabaxa bii di soññee ci mbind mu wér mbind moom da nga naan mu wér su ko defee teg ca nag mu rafet kon lii liggéey bu rëy bu am solo la boo xam ne eh, xam naa ne kilifa yi jëkk a ñëw te seen kàddu gën a jot fekk naa fi ndaw yi sëñ Modou Xabaan eh, seen kàddu dana ci jóg yaatal ko waaye ñi ngi ciy sant ñépp di leen ci ndokkeel te naan moom xam nañ ne du doy waxtu wu fursa jëkkatee am mu mën a amaatit ñii fi nekkoon danañ ko soxla waaye dana des mbooloo ndax wax jamono biñ toll dafa tolloog yeneen dawra yoo xam ne mi ngi am ba tax na xam naa ne mbooloo mi niñ ci waroon a wuyusee des waaye yaakaar naa ne ku ko ku ko waajalaat dajanteeg résultat yi fi jógee tasaaroo ci groupe yi ñi ko doon jàng di ko leeral buñ demee ba di ko waajalaat moom da dana soxla sax barab bu gën a yaatu bii. kon loolu ñu ngi leen ci séentu bu baax tey ñaan ñu dajee ceeg tawféexi suñu borom di jéggulu xam nañ ne jataay bi gudd na. te tey la ajjuma na sëñ bee baax rek sax waaye daanaka ñi fi jiitu woon seeni kàddu euh, mat na sëkk euh, ñi ngi sant bu baax a baax sëñ Abdou di leen jaajëfal ci taxawaay yi moom it mu nekk jàmbaari alxuraan joo xam ne moom foo seen ñu yëngatul alxuraan rek ma nga ca moom am moom amut frontière eh, jazaakumullaahu anil quraani xayral jazaa assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu kon Cheikh Mouhamadou Fadil kaddu gi kon ci yow lay mujj moom mi toogal kër gi di c nekkal sëriñ Seck ci liggéey bi moo xam concours bi ak yi ci aju yëpp ba ci séminaire bi euh, séminaire bi mooy ñaareel téere bi Jawharul Munazzam jotoon nañoo def formation benn xaaj bi amoon yéene mottali ko loola 2001 la woon waaye yitt yi fi dox tax na mott li nga amut waaye kon bii bii mooy ñaareel bi te saa su nekkit moom moo ne ci waar bi ànd kook nun ànd kook yéen kon Cheikh Ahmad kàddu gi mi ngi noonu jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen mbokk ci loxol Sëñ Abdou mi fi teewal si Modou Xabaan mi sëñ bi teg lu aju ci mbirum daara ci dëkk bi sëñ Fara ñu ngi lay jox sunu nuyoo ak nuyoo sëriñ ak nuyoo képp ku bokk ci liggéey bi rek tegal ci loxol sëñ Modou Xabaan mu tegal ko loxol xalifa général des mourides sëñ Mahdou Muntaxa yàlla na fi yàgg te xanaa di sant rek bu baax di sant comité scientifique bi jiite liggéey bii nga xam ne ñoom waxtu wu ne ñu ngi yëngu lu jëm ci mbindum alxuraan duñ ci toqi duñ ci déng-déng yi ñoo ci soññee ñoom ndax seenu cofeel ci alxuraan ndax ja xam na ne ñoom liggéey bi ak seen daara rek ñoom la ñamale ndax lépp la gëndu alxuraan di jël boobu di ko teg ci ak cant gi di xool sëñ Xaadim Njaay mi ci bopp bi ak sëñ Mouhamadou Moussa Diop Ndar ñu yëgal ko ci sant scientifique bépp képp ko ak ci mbirum alxuraan xanaa di jëlal ak cant ni yoroon mbirum njàngale mi ku mel ne sëñ Saam moom ni ñu ko waxee rek eh, eh, ay mbiram jégg na foofu ci liggéey bi mànd ko sëñ Mbàkke Sorong moom it noonu ak sëñ Saliou Sàll ñu sawar ci lool bëgg ko lool yemale ko ak seen daara yi ñor ci ci seen i kër wala sax ma ne mu gën a mu ñu gën ci sawar ci daay ndax daay ñoom tëj nañ ko te kon ñoo ñu ubbi fii kon damay jàpp ne sax moom moo leen gën ñor ci daara yi kon nag ñu ngi leen jot ci sant bu baax a baax a baax a baax a baax di sant sëñ Abdou Seck ak Abdou Khoudous mi taxawu liggéey bi taxaw taxaw goo xam si man niw ma fi maa nga Dakar bi ñu ko ubbi laa fi ñëw ak tey bi ñu koy tëj te dara manqué wut seen taxawaay moo ko andi. kon ñoom itam ñu ngi sant bu baax a baax a baax a baax di sant seen maam Cheikh Ndiaye bi moom itam ah moo itam bokk ci liggéey bi ak sëñ am sëñ Moussa Diouf moo gis naa ko fi léegi moo itam mu ànd ci liggéey bi xam naa lim ñëpp day jafe waaye xol bi moom ñëpp ngi ci biir waaye wax man na maa jafe waaye moom yéene ji moom ëpp na fi may waxee ndax lii ñu ànd bokk muy muy liggéey bii ñun ñëpp dañoo war ne ci biir te yéen yéen ngeen yéen ngeen ne ci biir yéen ñu ñu ne ci biti xañ na li ñuy def yéen ngi naan yéen a ngi ñoo def li ñoo def waaye lépp yéen ko def ndax ñun lii dong lañuy def waaye li bu ñu ko defutoon dara du am bâtiment ma bâtiment man mën naa nekk waaye nag ne ca biir bâtiment ba moom ñuy dundal lañ bëgg a def te yéen lii ñuy def yéen a koy def kon nag ñoo leen sant bu baax a baax xanaa di sant ñi ñoon jàng si ñoom itam li ñu jàll wax ci ñoom day wax ci ñoom di ay sëriñ daara fi mu ne mënuñoo toog ne na li ma xam doy na ndax yàgg naa am ci sëriñ daara daana def bu xamee dara rek ne doy na waaye ñoom wëri ma ñu ñu ñu lu bari lu ñu xam waaye bëgg nañ mu gën a dolli ko bañ nangoo nu ci bër gi ba pare nag nangoo ñëw di def ci lii kon nag ñëw leen sant bu baax a baax a baax ndax bi ñu koy wootee xawoon nañ ci am jaaxle ci ndax lu mel noonu tax waxtu noppalu nga ne nit ki kay kaay yënguwaat te waxtu mu tàmm ko te ci waxtu noppaloom loolu xawoon nañoo jaaxal waaye bi ngeen ñëwee wax dëgg xam nañ ne mbir mi moom seen yittewoo ko jéggi na dayoo waaye ñun tam ñu ngi fi rek di ko ànd ak yéen amoon laaj bi sëñ Moussa laaj boobu itam ñu ngi koy bàyyee ci yéen rek waxtu ngeen xoolee nu bëgg ñu doxalee ko ne rek ñun ñu ngi seen ginnaaw incha allah di ko ànd ak yéen ni ngeen ko bëggee rek ba téere yi ñu tàmbali ñu mën a yegg ndax xam-xam moom tàmbali ko mu yegg baax na ci boo léegi nga mën a téere sàngam jàng naa ko ci boroom xam-xam sàngam kon nag lii moom tàmbali nañ ko waaye nañ jàpp ne war na yegg bañ tàmbali yeneen waaye bii moom na ngeen xool yéen nu ngeen mën a programme seen biir ñu ne seen ginnaaw taxawu leen ànd koog yéen ak ñoom comité scientifique bi nga xam ne ñoom itam toqiwuñu ba téere yi mën a yegg loolu daal ñu ngi ñaan ma am na ay yu ma fi dégg tam loolu itam incha ñu ngi seen ginnaaw wax dëgg la ab seen daara bu ubbee daaraam te daan xëy te xëyut wax dëgg ay yitte du mën a ñàkk ah, di dem ak ñëw ci dëkk bi moom xam nga moom foo jógee rek moom taxi moom du may kenn dara kaay fay kaay fay moom amul amul lu xam xamul dong xamul si daal nga xamul leen nga loolu itam bu soo yàlla fas nañu xool nu ñu ci mën doxalee ak yéen boo waxtu ngeen jógatee rek. ñu ànd ko ak yéen incha allah ba liy jàppale seenu ñëw ak seenu dellu moom ñu jéem a xool nuñ koy eh, nuñ koy taxawee ndax lu ko jarala la ci noonu waaye nag ginnaaw bi ñu koy tàmbali ñun xamuñu xamuñu muy tëddee tax loolu mën ñu ko limaale waaye incha allah fas nañ yéen yéen ñi xas moom xam nañ yéen yéen a ngi ci biir liggéey bi moom waxtu jóg joxetee rek ñu jàppandal leen jóg gi ba ba ngeen mën di ñëw ak a dem te e, yenn coono yi moom dañ ko féetewoo ñun bu soobee yàlla fas nañ ko yéene ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyiwuñ kenn sant daal mëntu weesu sant waaye lii daal ak cant mënu ko ëpp woote lu baax ñu ca nekk bëgg lu baax wisi la ñañ fekk si ñoo tam ñu jox leen lu doy doy doy doy loolu wax dëgg kenn amul lu ko xam nañ ne moom gon ñi fi jàng moom xam nañ ñenn ñu jox ñenn ñu jox xam-xam bi xam ne yéen nañ ko joxe na leen ko joxee bu leer kon daal li may ñaan di ko dolli rek mooy ñu fexe ba mu wéy wéy gi nag moom laaj bi ñu laaj bi misaal laaj rek moom mooy wéy gi fexe leen rek ba euh, wax waxtu waxtu ñu koy def kon nag maa ngi dolli sama sant ci mu jóge ci sëriñ C3S ñëw ci yéen ñëpp lépp lu aj ci alxuraan rek fas nañ ko yéen ànd ak yéen muy wax C3S. ñooñ bokk liggéey ba ñuy gone ci di liggéey ak kilifa ci biir liggéey su may tànnee kenn ca muy daam Touré moom mooy coordinateur liggéey bi moom itam ma teewal ñëpp kon daal waa C3S ci kàddu sëriñ ñu ñëw ci man ak kàddu ñu fay liggéey ñëpp ñoo ngi sant comité scientifique sant ñu doon jàng si ak ak sant ñoo jàngale si wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa jërëjëf Cheikh Mouhamadou Fadil kàddu gi rafet na loolu nga ci boole it ci jàppale ñi ñëw ak dem ba seenu dem ak dikk yomb it ñu ngi ciy gërëm bu baax yal na yàlla fay leen aw yiw xawma ban dërëm moo sànku waaye dërëm boo xam ne ci alxuraan lañ ko def di moom sànkuwut xaw ma fu waxtu sànkoo waaye waxtu wuñ def ci alxuraan moom sànkuwut sëriñ Tuubaa de moom dane woon maasikan bil kitaabi maska dariri bi yadi l qaidi l basiri l muini alquran dama ne ko noos ni nga xam ne gumba gu nekk ci mbëndin wu bari luy fàdde xamatul fu muy jaar ba mucc njàccaar dikk jox ko loxo ne ko téel sama loxo ma génn la mbëndin bi na muy téye ca loxol njàccaar la mu nam cay ngoyee sëriñ bi ne na man noonu laa def alxuraan te nag bi mu fi nekkatut yéen la ko dénk moo tax may wax ne nun liñ boole ak alxuraan ñaari yëf la ay jullit la ñu war koo jàpp waaye daa bokk ci bagaasu sëriñ bi ñu war koo sàmmal ndax moom la yëkkati woon teg ko fu mu tegul dara Cheikh Ahmad Fadl ñu ngi lay sant kon sëñ Abdou Khoudous dafa wax ne am na fi ay bâche comme yu mel nii nga xam ne manees na cee jàng xaraf manees na cee jàng bind bu soobee yàlla sëñ daara bu ci nekk daal ko jox bâche mu yóbbaale ca daaraam di ko wékk wékk ko ay gonem di ci xool di bind am na solo naka noonu yi Cheikh Mouhamed Xaban moom it daañ ko jox ab lim ci bâche yi ak téere yi téere it at bâche meññeentam concours yaatal mbindum alxuraan la incha allahu dana am xaaj bu ñu leen ci jox ngeen yóbbul ko jox ko sëriñ bi eh, yéen ñëpp ñu sàkku ci yéen ngeen ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa ñaatal ñaanal Cheikh Mouhamadul Xabaan waaye ngeen ñaanal alxaji sëriñ Seck Cheikh Mouhamadul Fadil ak mboolem ko nekk ci kër gi ngeen ñaanal mboolem ko nekk ci na ilmiya mboolem fu sëñ daara nekk ngeen ñaanal ko waaye léegi kon ñu jëm ci joxe euh, attestation yi mooy lijaasa yi kon sëriñ Abdou Seck nan nga ko bëgg a kon dañuy woo sëriñ Mouhamad Diakhaté mu ñëw naan ak sëñ Abdou Fatah mu ñëw jox ko diplôme. soxna maam jaaraloo kon nu jege si. Serigne bu Bousso moo koy jox cadeau am euh, sëriñ am Serigne Damba mën naa jege si Serigne Damba Serigne Xaadim Ndiaye na ko jox diplôme am Serigne Fallou na jege si Serigne Sambake jox ko diplôme am soxna Mati Wañaan am Amdi Diop moo ko jox kadoom am soxna Mati Wañaan ahmadul xadim jaxate sëriñ Mbàkke Sourang moo ko jox cadeau euh, diplôme sëriñ Mamor Guèye maam Cheikh Ndiaye moo ko jox diplôme sëriñ Sam Sànqe sëriñ Moustapha Diop moo ko jox diplôme sëriñ May Amar Abdoul Khoudous Sill moo ko jox sëriñ Abdoul Khoudous moo ko jox diplôme Baye Malick sekk moo ko jox diplôme Balla Thiam Iba Der Jigal Oustaz Saliou Sall moo ko jox diplôme Iba Der Jigal xam naa li ñuy def rek mooy dañ jox sëñ Fallou sekk mu jox li joxe li jëm ci kër sëñ Modou Xabaan moo koy joxe kon li sëñ Abdou euh, li sëriñ Fallou Seck di jox sëñ du Xabaan ci loxol sëñ Jili Buso la koy teg. la tamata def mooy mooy bindum alxuraan moom maanaam dafa bokk ci yi nga xam ne sëñ bi da koo indaale. mooy bi bi bi mu ñëwee dafa fexe ba yooyu mu dëgër boo xoolee lim ci daan daj li ci soññ nit ñi loolu rek ko waral ba tax lii moom. sëriñ bi mi ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax bi mooy dafa wax ne moom bu mënoon a ñëw sax moom mooy ñëwal boppam waaye wax ne nañ def délégation ñëw ci ndax lii moom ci dafa bokk ci yees yi yi yi ñu war a dëgëral bu baax a baax bu baax a baax